Monsieur le Président, chers collègues, chers collègues de la presse, maa ngi nuyu ñëpp euh, monsieur le ministre nag fi ñuy njëkk a wax ak moom mooy dañu jàpp ne moom bokkul ci ministre yi nga xam ne dañuy politiser les institutions gisaguñ ko ba fii te yaakaaruñ ne dinga ca bokk la sabab nag moo ubbee loolu mooy ñin walla man nekkuma un nihiliste suñ gisee dara ne lii baax na dinañ ko wax euh, tali bi jógee centre sauvegarde jar marché Sam dem ba buntu stade Amadou Barry démb informé nañu ne déguerpissement bi dina commencé le 2 dinañ ko commencé liggéey bi ñu ko waxee ak léegi nag ca jamono ñoom Aïda Sow Diawara la woon sama yaay maa ngi lay nuyu boobu ba léegi te bii yoon moom yaakaar naa ni ce sera lu jëm ci wàllum feeraa bi tamit am na ko fi wax léegi benn collègue mu nekk lu am solo wax nañu ne signé nañu la convention bu ville bu Guédiawaye alhamdulilah monsieur le ministre rond-point Gàddaay la am ci ay moor ay doomu aadama yu génn àddina kenn xamul nu mu toll bind nañu wax nañu yónnee nañu lu ne digital nañ comme ni ko waa ji bañee léegi nii TikTok nañu Euh, Facebook nañ lu ne mais ba fii ñuy wax ak yow nii dara ba tey rond bi tous les techniciens li ñu wax mooy ni ñu ko liggéeyee ci boppam moo baaxul barki démb rek la fa Dakar dem dikk mujjee yéeg ci kaw rond-point boobu mooy benn ñaar éclairage u VDN trois bi ci boppam à partir de wàcc Cambérène dem ba génn Malika amul benn làmp boo xam ne nekk na fa loolu Ageroute la si sa si say service la bokk monsieur le ministre infrastructure yi nga xam ne ñoo nekk géejawaay yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp excepté la ville te ville bi sax ministre ñëwul inauguré ko kenn ñun nous avons presque fait un forcing parce que li ñu doon ragal mooy ñu politiser ko xëy ñu ne léegi mairie bu bees bi jox nañ ko préfecture ñu daw dugg fa parce que maire bi daf doon waaj a daan mais mën naa lay énumérer quatre-vingt-dix-neuf pour cent infrastructure yi nga xam ni état central moom moo ko defar biir géejawaay yëpp réception la toll amul benn boo xam ne bougé na te quatre-vingt-dix-huit pour cent yëpp say service la muy Promoville muy AGETIP euh, muy muy muy muy AGEROUTE yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mën naa la limal PISA bi di pôle internet et services associés AGETIP la maison des associations Promoville la euh, aménagement boulevard Darou Salam Promoville la infrastructure yooyu noonu yëpp ba fii ñuy wax Mais, monsieur le ministre, c'est vous qui nous dites que l'État, c'est la continuité. Les hommes passent, les institutions demeurent. da ngeen di xam nga yéen seen ñàkk respecté institution yi fii la tàmbali kii seen kii kii kii kii ci yéen la bokk man xasew ma waxaguma ko lu bon te ngeen ne kii balaa maa naaw seen kaw da ngeen di ñaan njekk rek ci njekk vous comprenez monsieur le ministre bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci wàllum accident yi accident yi Macky Sall moom président de la République depuis ministre intérieur la fi waxoon tolérance zéro tey la accident yi gën a bari mu ñëw indil ñu Ablaye Daouda Diallo mu ne tolérance zéro booba la gën a bari mu ñëw ne Antoine tolérance zéro tey la gën a bari tey itam ñëwaat nga demaat nga ci ay accident accident accident yàlla nag moom sama collègue bii nag. nga xam ne suma yaay waa foofu la muy Karim Sène mooy maire ba pont yi na ci boole waale pont wu campement Ndangaan Samb Marloj ma koy wax nag li mu fi wax sànq ci lu jëm ci wàllum séeréer ma débrouillé Macky Sall bon gouvernement fa ne teen afaga xam nga afaga mooy jeex na kete war na fi kay ten refuye fataret mooy nguur yéen ñi déggloon li mu noonu sànq kas kii baaxul dane Macky jeexalagul du dem ci séeréer ma ne ko tigee afaka Macky Sall fataret na dem jeexal na ci jeexal yu njëkk ya wasalaam merci la parole est euh, Ibrahima Sakho le suivant merci monsieur le président chers très chers collègues monsieur le ministre chers collaborateurs du, du ministre, M. Léger,